dal leen ak jàmm mbokk internet yi nopp dalootina ci coowal Sinébar bato bu mag bu ñuy wax Grand Nigeria feeñalati na yenn ci secret trafiquant de drogue yi téeméer ak ñaar fukki kilo ci cocaïne moom la ñu fekk ca biir boobule bato ñu xayma ko ci juróom-ñeenti milliards ak juróom-benn téeméeri million boobule drogue ñu ngi ko nëbboon ca wàll gu ñu féetalee système de ventilation bu bato boobule ñu ngi ko fekk ci ñeenti sac sag bu nekk def lu tolloo ko fanweeri plaquette benn plaquette bu nekk amoon na benn kilo ci cocaïne xibaar bi mu secret bu woowaa douane xamal leen ne ab dorog am na ci biir bato boobule ci boobule xibaara ci la ñu yebal ab unité de contrôle bii saytu lu nekk ci biir bato yi nekk ab pàcc gu bokk ci douane bu port autonome bu Dakar ñu àndoon ci ak ay éléments bu police ak office central de répression du trafic illicite des stupéfiants ñoom ñëpp ñu àndandoo takko di fouiller boobule bato ba gis ci dorog bu nu mel ñuy xam ana leneen lan lañu bato boobu boobule di indil ci xibaar ay laaj jot nañu samp ci mbir mi ndax bi lay anamu seetin bu takku bi ñu def ci bile bato ginnaaw bi ñu jotee bii xibaar ndax dëgg-dëgg seetin boobu moom la ñuy def ci bato yépp saa yu sune bu weesoo xibaar bi may takk der ñu teg loxo ci boobule dorog ñaata ñoo rëcc ci juróom benn weer yi weesu ginnaaw bi nga xamante ne tegoon nañ fi loxo ab dorog ci boobule bato di Grand Nigeria ak ci beneen bato bu ñuy duppee Grande Africa tolloon ci la ëpp tonne de cocaïne ñu xayma woon ko ci ñaar téeméer ak juróom fukk ci ay milliards ci suñu xaalis lu ci mënti ji Ousmane mi leen di déglu ci ab lanket bu muy amal ci mbir mi ngir mën indi ay tontu ci laaj yi ñu jot a samp waaye li gën am solo ci mbir mi ci wàllu yoon jot nañ ci teg loxo ñu bari te bokk na ci ñooñu ay transitaire yenn ci ay liggéeykatu port autonome de Dakar ak sax commandant italien bi doon dawal boobule bateau jàpp nañ itam benn ci membre équipage ak benn couple allemand bu doon tukki ci boobule bato li ñu jot ci ay xibaar bi ñu leen di déglu ak li ñu joto jëlee ci seen ay téléphone ginnaaw bi ñu leen tegee loxo moom moo may wax dëgg mbir mi réseau bi fii ci Sénégal ñetti nit ñoo ci taq ripp ku ci mel ni Amadou Gueye Ismaïla Ousmane Ba ak Ibrahima Thiam ñu di ko woowee Toubey ana fan la mbir mi di mujjee ñu nag yenn tànk ak tànk bët ak bët dina leen ci ñëwaatal ci yeneen xibaar ak yeneen di leeral jërë ngeen jëf